Je m'appelle Mansour Nian, je suis le maire de la commune de Toubamboul. Donc nous sommes euh, réunis ici aujourd'hui dans le cadre du projet de la coopération Activa, euh, qui est euh, une ONG euh, qui travaille depuis longtemps avec euh, l'association de Djaourekouta. donc on a réuni les villages qui sont bénéficiaires de de ce projet pour leur présenter d'abord Euh, le projet euh, et leur dire les pas qu'on a marqués jusqu'ici. Euh, parce que le, le, projet a commencé à travailler depuis des années. Peut-être qu'il a fait extension euh, sur d'autres villages euh, et même dans la commune de, de Ndjouman. C'est pourquoi on a euh, réuni les, les, nouveaux villages bénéficiaires pour leur présenter le projet et leur montrer commence à mars Euh, ce qui fait qu'on a invité le, le, le, le maire de Ndjouman pour qu'il euh, assiste à cette euh, réunion. Euh, parce que dans la commune de Ndjouman, on a, pris quatre villages euh, pour les ajouter sur les huit villages qui étaient déjà en place, qui travaillent avec le projet. Maintenant, le projet, il travaille dans deux activités, l'agriculture et l'élevage. Euh, auparavant, on avait sélectionné huit villages, des villages qui ont des associations, les associations des jeunes qui avaient euh, euh déjà une reconnaissance juridique. Euh, c'est avec ces associations-là qu'on avait commencé. Euh, maintenant, sur ces huit villages-là, on, on, a choisi quatre villages euh, dans lesquels on a commencé à monter le projet. si on prend l'exemple de du village de Ndoka, Ndoka On a aménagé un périmètre maraîcher euh, et on, a commencé à deux périmètres maraîchers. Donc on a commencé à euh, monter la pompe. Euh, une pompe qu'on va plonger dans le puits euh, pour alimenter ces, ces périmètres-là. Euh, donc c'est un projet très important et qui est très attendu par les, les villageois, hein, euh, avec euh, un engagement et euh, euh une volonté bien déterminée. Euh, donc je pense que euh, le projet de Ndoka, de Ndoka 2 sera le projet pilote de la commune de Toubamboul. ma ñëwee si rajo bi ndax ni taxawoo ndaw yi nekk si réew mi. lu fi mel ni seew ak euh, mbul ak ndokaan ak yeneen village yi fi nekk yëpp ndax instant bi ñu toll dañ ñoo jàppale ci kii bi dañoo jàppale ci euh, liggéey bi pour suñ góor yi ak jigéen ñi ñu jigéen ñi nga xamante ni dañ fiy jugee lu mel ni dem ba Touba ay dakaar waa jàppale ci yu bëri ndax loo xamante ni instant bi ñu toll duñ mën a dem di euh, génn pour di witi ji yeneen marchandise dañ ko witee ci suñu dëkk ndax moo ñuy arrangé arrangé suñuy góor yi dëkk. boo ñu jàppalee ci wàllam mbay day day yomb torop ndax ñun góor yi village yi ñoom bay leen xam lu mel ni sàmbu wala gerte wala dugub bu ñu jàppalee dafay baax ndax euh, instant bi ñu toll ñun jigéen ñi day tax ñu gën a mën a liggéey pour mën a jàppale ëllëg suñu suñu njaboot mën a jàppale suñ góor yi dëkk pour mën leen jàppale ci yu bari. dañu di jàppale ñuy kontaan trop ndax instant bi ñu toll ñun jigéen ñi liggéeyuñ dara dañuy xëy tëdd te il faut que mun gisee koo xamante ni dañuy jàppale il faut que dañuy dañuy kontaan si affaire bi loolu leen si man tak pour jàppale leen rek lépp loo xamante ni yéene leen ko rek yàlla defal leen ko. ñi nga xamante ni mooy xale góor yi wala mag ñi wala ndaw ñi wala ñu jigéen ñi. ñu góor góorlu liggéey si pour ANCAR ëllëg seen njaboot ndax ñooñu di leen jàppale di jël seen xaalis di ko financer pour ñu liggéey la bëgg pour bëgg jigéen ñi ñu jàppale jigéen ñi xam te ni tëdd si kër yi liggéeyu dara ñoom góor ñooñu noonu ñu góorgóorlu si wàlla mbay ba ñun jigéen ñi ñu dem bay liggéey pour ëllëg suñu njaboot ndax ki ñëw pour indi xaalisam pour jàppale la bëgg nga liggéey moo tax ndax instant boo liggéeyee boo liggéeyee yu bëri mi ngi si kanam ndax tey jii nii bu la indiloon tey jii lu mel ni 200 nga liggéey mën nga dem ba indi 600 moo tax góorgóorlu rek ñu ngi leen daan sant daal di leen gërëm. maa ngi tudd euh, Fallou Dia maire de la commune de Ndioumane euh, waaw li waral samay tànk fii euh, maa ngi remercier monsieur le maire Mansour Niang mi nga xamante ni moom moo ma fi invité di remercier waale Demba Kouta mi nga xamante ni <clears throat> moom moo fi représenté projet bi nga xamante nii Eh, coopération Activa bi nga xamante ni mi ngi nekk eh, Espagne eh, ki nga xamante ni mooy nekkal fii ci réewu Sénégal bi ñu koy wax Abdou Diaw dëkk Diawrékouta ñoom ñëpp wax dëgg yàlla maa ngi leen di sant bu baax ci confiance bi nga xamante ni am nañ ko si man ba invité ma ci ndaje mi muy ndaje boo xamante ni pour développement communes yi rek moo ko tax a jóg muy yëngu si wàllu élevage ak agriculture. yàlla dogal nag bi nga xamante ni njëkk nañ ma fee invité bi ma ñëwee ba déglu programme bi ni muy déroulé ci laa gis ne wax di yàlla programme bu am sens la bu am importance la ci laa demandé woon euh, pour ñu commune Ndioumane man se participer. li ñuy xaar si ñoom yomb na trop mooy teg ñu si yoon bi rek euh, yàlla dogal na nag gis nañu bunt yi ba ubbil nañu bunt yi ba teg ñu si yoon bi li ñuy fas yéene rek mooy incha allah euh, ci kanam tuuti balaa yàgg daal bu ñu jëflante ak ñoom. ñu ñun li nga xamante ni mooy ñi lañu xar suñu tànk tubéy mooy fas yéene nekk sa kanam rek incha allah ba nga xamante ni waxuma la ndaw yu ñu maan waaye ndaw arrondissement de Kayel daañu ko xeemeem ba nga xamante ni arrondissement bi yëpp dañ di gis seen bopp ñun loolu loolu moo ñu tax jóg parce que ku ne xam ne ne àll bi de agriculture ak élevage moo moo moo moo fi gën a nekk prioritaire ndax gis nañu ndaw ñu wax di yàlla manqué nañu liggéey bu baax a baax a baax gis nga ñu wàcc seen dëkk di toxu Tuubaa ñiy dem fu ne kon nag bu ñu gisee bunt yoo xamante ni daañu mën a dellu siwaat fi ñu dëkkoon ci seen dëkk cosaan yi euh, vraiment liggéeyaat liggéey bu am solo boo xamante ni daañu mën a yor seen waajur yi euh, ci loolu daal ñun incha allah ci la ñu fas yéene nekk waaw ndax euh, maire moom développement rek moo ko tax a jog képp koo xamante ni yaakaar nga ne boo fa dugalee sa loxo saw askan daañu ci gis seen bopp da nga fay daal dem dugal fa sa loxo. gis ay association yoo xamante ni comme surtout coopération yoo xam dañuy ñëw yor seen oto rek filmatal dem comme ni ko nii waxee waaye ñun. li liñ ci gën a sawarloo mooy ñun dañoo gis dañoo gis dañoo teg suñu bët gis ndax biñ ñëwee fii déglu gis nañu euh, importance bi mu am nga xam teg nañ suñu bët yàlla dogal deuxième fois biñ ñëwaatee gis nañu financement yi nga xamante ni ñun ñoo si teg suñu bët avant may ñëw euh, gis naa ko comme ni ko man soo waxee gis naa ñu publier ko vraiment ma am ci kontaan trop bi ma ñëwee it ñu jaaraat foofu kon loolu rek day wane ne wax dëgg yàlla weddi moom gis bokk ja ki nga xamante nii day ñëw mu jëf nga teg sa bët gis bokk ak ki nga xamante ni day ñëw di diggay di diggay dem waaw euh, importance boobu daal moo tax ñu gën cee sawar ñun personnellement. Mansour Kouta président association développement bu Diawré euh, di nuyu ñëpp rek di di ziar euh, di am mbégte ci ndajeem tey mi. bu jëmale woon ci wàllu bay ak sàmm ñu bëggoon ci occasionné wu nag di wax ne association développement Diawré yàgg na def ay activités depuis 2014 ñi ngi def ay activités ci lañ installé woon suñu case de santé bu Diawré. Euh, góorgóorlu woon nañ nag ba am infirmier d'état bu fa nekk ak benn sage-femme d'état euh, ñu ngi doon def ay démarches nag di interpeller waa ministère de la santé di leen wax ne nan nu gestu jàppale ñu ci personnel de santé ak euh, érisel ñu poste bi defal ñu ko postu loolu daal lañ bëgg commune bi wax dëgg yàlla yaatu na rëy na lool te benn poste de santé bu actif rek moo fi nekk actuellement ñu bëgg nag ministre bi yëg loolu dimbale ñu. taxawuñu ci ci ci loolu dimbale ñu mën a ne ci leneen ndax bu ñu jàppalee ci personnel de santé ñun suñu association dina mën a yëngu ci leneen dina yëngu ci leneen ndax ñun ñi ngi yëngu ci wàllu santé di yëngu ci wàllu école yi boo ñëwee jawre suñu suñu école am na salle d'informatique boo xam ne association bi moo ko créer am nañ centre de couture bu mag boo xam ne ñun ñoo ko créé jigéen ñi foofu léegi ku am sa yére yaa koy daggal sa bopp ñaw ñi ngi ñawal seen bopp même dem nañ bay ñaw yeneen ak yeneen ñu bëggoon nag ku ñu jàppale rek ci érisel ñu poste bi ñu ngi ci lëkkaloo ak euh, mairie de Tarragona mairie de Tarragona mi ngi mi ngi mi ngi lëkkaloo euh, coopération Activa bi nekk Salu Espagne euh, moo moom financement yu bëri yu ñu am foofu lay jaar di fa jóge moo ñu doon jàppale ci yu bëree bëri ba wax dëgg yàlla Euh, post bi taxaw na ci nor norme poste yëpp lu war a dem ci poste def nañ ko fa matériel yeeg yëpp ma nga fa euh, infirmier yuy faj it ña nga poste bi lii fa nekk mooy tabax nañ occupé nañ tabax nañ ko ba euh, am na bureau sage-femme bureau infirmier am na maternité maanaam am na maternité am na médecine am na logement def nañ ko fa am nañu infirmier itam bu fa nekk ak sage-femme li ñuy sàkku rek mooy ku ñu ériger yóbbu ñu defal ñu ériger ñu poste bi case bi ériger ñu ko poste de santé loolu rek lañu bëgg.